nekk ñaar bras de mu am foog mu am ñaari loxo mu loolu waaw am damay bras de fer ci vingt trois janvier bi wax dëgg yàlla bras de fer bu su léewalee ci sa bopp ba dëgg weer sa bopp buñ leen dóoree ci élection yi xanaa leneen lañ ci mën a yokk mooy ñaanal leen yàlla ngay xool ñu ci des nag mooy ñoom ñu nag mu ànd ak ñu Dakar tabax Dakar jël Dakar sargal askanu Dakar foofu la ñuy xaaree état bu Sénégal xaaral ñu état bu Sénégal kon audience boobu waxoon naa ko ci campagne bi ne tey bii daal suma responsabilité pour man jëloon ñu daal jóg dem seeti madame Macky Sall ñun xamante ne lu baax la waaw baax la waaw wante daa dama dem. su ma des place amatuma ma ma jóg sol suma ay dàll ci tout Dakar dem seetlu président de la République du Sénégal ñoo ne ko lii de Dakar am na lii de Dakar soxla lii de Dakar di xaar ci yow mooy suma responsabilité te loolu dafa ko fas yéene euh, foofu la ma Dakar waa ci Dakar waa ngi xaar wax ngeen ci wax ko organigramme de la ville de Dakar. Imagine me at the point at two minutes. Suma ba ma tollee ba tey dama tànn lu ëpp douze personnes suma télé bi am na ay chargé de mission am na ay conseil technique am na ay conseil spéciaux ñu leen di gis suma ginnaaw nii ñëpp c'est le cabinet de la ville de Dakar lu tax kenn waxul seen wax yéen est-ce que xam ngeen benn waaye bu ñuy woowee Omar Blondin Diop sama cabinet mos ngeen déglu ñu ci cabinet bi mos ngeen déglu ci cabinet bi bu ñuy woowee Mamadou Ka ñu ci cabinet bi mos ngeen déglu ci cabinet bi bu ñuy woowee Xalil Diak ñu ci cabinet bi lu tax nag ñoom kenn sa wax lu tax ñu bëgg a sikkil kii Malick Sagna ak capitaine Touré balaa may dee dinañ wax organique ñoom ñuy wax na ngeen dem xool seen organigramme man ngeen xool seen ay décision parce que une chose est claire mooy présidence de la république organigramme bu fa nekk mënoo fa am presque trois cent ministres conseillers et conseillers techniques et chargés de mission lu nekk nekk fa waaw kon nag ñoom su ñuy nekk ci seen maa tey man nangu leen seen maa tey wante na may man na mën a liggéey suma liggéey ma n leen santaane dafa dama continuer constitution du Sénégal waxuma ko décret xam ngeen décret bi président moo koy signé kon nag am décret sax dama ne constitution du Sénégal di suñu Afrique di suñu bind moom moo wax collectivité locale yi dañ leen baaxee libre administration kon nag activité bi am dugg ci kaw loolu mënul nekk libre administration loolu man dama ne préfet bi jógee kenn du Sénégal amul sañ-sañ ne ma balaa ngay ànd nit sa cabinet da ngay jaar ci man de organisation du ma ko def tey du ma ko def suuf amul suffrage universel direct loolu la ñu faral man suffrage universel direct man nekk naa fi bépp classe nationale du Sénégal président Macky Sall musul jaar assemblée nationale taxaw ne est ce que man mën naa am bopp wala conseiller yaa ngi wax waxu organique soxna si kan mooy directeur de lu ma leen wax mooy lu loi bi wax loi nee na kenn mënul nekk directeur de cabinet du président de la République te amoo benn diplôme universitaire balaa yem ci wax ci. loolu loi bi loolu la loi bi wax waaw man sama directeur de cabinet mi ngi nii titulaire de plusieurs masters ancien directeur de l'hôpital régional de Sédhiou ancien directeur de l'hôpital Abass Ndao ancien directeur de l'hôpital Abel Waye titulaire de plusieurs universités waaw mi ngi wax ci wàllu capitaine Touré d'abord capitaine Touré d'abord tey dañ koy jaajëfee dañ dañ ko doon développé Sénégal ñoom dañuy complot seen complot capitaine Touré surtout woon yàlla dama ne capitaine Touré ay mbokk ak may dégg surtout woon yàlla te tey dina dégg beneen grade wante nag su ko defoon tey Sénégal di ngeen dégg lu ëpp 14 mois ka kuréel ga Diogu Nganda ga Diogu Benis amaa ko. lii maa ngi si ñaan ak moom tey Sénégal ci gàttal amagul di dugg ci lu nga xam ne seen yoon newu ci wala yaakaar ko du fi kenn waaw syndicaliste nga taxaw nga da ngay représenté les travailleurs de la ville de Dakar fii di ngeen gis nit ñi ñu jub am master cent quatre-vingt mille francs ñu bokkal ci tàngaay ba doo ko Voici les sacrifices pour le nom et le père des travailleurs de la ville de Dakar doivent parler. te bàyyi di ci nga xam ne seen yoon nekk ci. waaw. man bëgguma man man dama ne. yow kilifa nga yow mu jàkk nga ci politique dama ñëw beesal wax leen ni kii mu jàkk la. dama ne dama ne parce que il faut se comprendre même même rek yéen waa presse bi après ñu rek suñu bëri Sénégal yi ñu ngi jël après ñu après ñu rek dinaa leen jox exemple parce que waxuma waxu conseiller technique en charge des affaires sociales de l'organisation parce que poste boobu ma ñëw poste boobu il a toujours existé la preuve à la ville de Dakar dafa am la DAS c'est la direction de l'action sociale mais su amee mais c'est l'administration mais ci bureau municipal bi am na adjoint au maire de Dakar en charge de l'action sociale loolu bureau municipal bi mais ci conseil municipal am na président commission action sociale waaw maintenant maire bu ma doon man kan moom may conseiller suma cabinet ci biir action sociale kan dama ne Guy Marie Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l'action sociale il restera le même. beneen bi ñu taxaw ne gendarmerie fan la nekkoon gendarmerie section de recherche lan lañ fay liggéey fu nekk ba sécurité amoon na benn jigéen bu fi nekkoon décision moo nekk nii dama ne signé ak maanaam le maire Soham El Wardini excuse-moi Pape Khalifa Sall maa ngi jóg parce que dañu taf dañu taf tuuti pour nit ñi bañ a gis article premier ñu ne diw boobu te muy jigéen nommé nañ ko conseiller aux affaires communales nouvellement engagé non dañu nekk kooku ji waaw dañu ne jigéen boobu mu aux affaires communales nouvellement engagé par contrat numéro. plan plan plan BAO V2 mooy ville de Dakar du 22 novembre 2011 est nommé conseiller technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine. fan la préfet Dakar nekkoon fan la président nekkoon bañ koy nommé jamono boobu bañ koy nommé ba tey ñu ngi fay ko de trésor tey ngeen taxaw man ma jël benn décision su ma décision maa ngi koy jël. moom soxna si ba nga xam ne sax di di dugg ci cabinet bi c'était le 6 décembre 2013 benn bëri article premier moom jigéen ñoom conseiller aux affaires communales nouvellement engagé par contrat numéro 1 bar ville de Dakar du 22 22 novembre 2011 que nommé conseiller technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine mi ngi nii man. ma ñëw yoon may ma sañ-sañ ma beesalaat suma cabinet man ma jël décision du 21 avril 2022 ma ne contrat boobu dañ koy arrêté mooy jigéen boobu ma ne contrat boobu dama ko remplacé par capitaine Touré waaw loolu damay laajte damay laajte rek. kenn ci mën naa bii de ma dafa am benn waaye bu taxaw fële nekk sama maay la xool naa digal maa ngi koy xaar fii fii laa koy xaar dama ne ces gens sont membres du cabinet et ils resteront membres du cabinet dama ne ku mu neex jóg def lu la neex man su ma jógee dinaa def li mu su la neexee sax à qui de droit, même de bloquer même les salaires au trésor, je dirais à qui le droit de faire ce qu'il a à faire pour que les personnes qu'on contacte avec la ville de Dakar puissent honorer leurs engagements avec la ville de Dakar et que la ville de Dakar puisse aussi honorer ses engagements.